assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi noo ngi santaat sunu borom tabaraka wa taala di julliwaat ci yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaan moom yàlla mu jéggal ñu mboolem sunuy bàkkaar te nangul ñu mboolem sunuy jaamu yàlla waaye it yal na ko defal mboolem jullit tey jii inchaa allah sunu yóbbalu bis bi dañu koy tënk ci al istigfaaru taw ba maanaam jéggalu yàlla ak tuub maanaam jéggalu ak tuub ñaari baat la yoo xam ni dañuy faral di ànd lu baree baree baree baree bari ci alquraanul karim ak ci xadiisu yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñaari baat yii nag fu ñu àndee fu nekk seenug piri dafay taqalikoo maanaam jéggalu ak tuub doonuñu benn waaye nag jege nañu lool jéggalu yàlla su àndeek tuub bu boobaa jéggalu la muy tekki mooy maa ngi baalu maanaam bàkkaar bii nga xam ni def naa ko njombe gii nga xam ni def naa ko dey maa ngi la koy baalu yow yàlla sama borom maa ngi la koy baalu nga baal ma ko maa ngi sàkku ci yow nga fompal ma bàkkaar bii ma def bu dee tuub nag mooy bàkkaar bii ma def maanaam njombe gii ma def maa ngi koy rëccu te dootuma ko dolli maa ngi koy rëccu te dootuma ko dolli kon jéggalu ak tuub loolu mooy seen différence maa ngi koy rëccu waaye nag dootuma ko dolliwaat am na beneen waxkat bu wax ci boroom xam-xam yi ni jéggalu la muy tekki mooy bàkkaar bii ma def day jéye ji ma nar a indil yow yàlla maa ngi lay ñaan nga baal ma ba jéye jooju du dal ci sama kaw walla li ma nar a yàqal duma ko yàqal ci li nga xam ne jot naa ko am waaye nag bu dee tuub mooy bàkkaar bii ma def day maa ngi koy rëccu lool ba yàlla li nga xam ni jéye la mu nar ma ko dikkee yàlla nag ma ko baal ba bu ma dikkee mukk ko kon loolu mooy seen différence waaye nag tuub boo ko déggee rek mooy maa ngi réccu bàkkaar bii ma def waaye nag duma ko dolliwaat jéggalu nag mooy yàlla maa ngi lay baalo yàlla boole na leen ci ay aaya yu bari ci alquraan bokk na ca fa yàlla di wax ni wa an istaghfiru rabbakum thumma tuubu ilay yumattiakum mataan xasanan ila ajali musamman wa yu'ti kulla di fadlin fadla wa in tawallaw fa inni axaafu alaykum adaaba yowmin kabir booba huut moo doon waar ay nitam naan leen nangeen ngeen jéggalu yàlla seen boroom te tuub delluwaat ci borom bi tabaraka wa taala su boobaa bu ngeen ko defee bu ngeen jéggaloo yàlla nangoo tuub kon dey borom bi dana leen defal ay xéewal yu bari lool xéewal yu neex lool ci àdduna gi ngeen dund dund gu neex ba keroog ngeen fiy jóge ba noppi kenn ku ci nekk dana ko jox ay xéewal teraanga ngir lan ci jëf yu rafet yi mu doon jëf ak ci jéggalu gi mu doon jéggalu borom bi tabaaraka wa taala waaye nag su ngeen lànkee bañ a jéggalu yàlla bañ a rëccu seeni bàkkaar nuur ci mooy yàlla kon de maa ngi ragal mbugal mu metti jóge ci yàlla wàcce seen kaw kon jéggalu yàlla ak tuub dana tax nit ki am xéewal ci dundam ci àdduna am ko yowmal qiyaamati waaye nag ñàkk a tuub ñàkk jéggalu yàlla mën na indi mbugal mu ci borom bi tabaraka wa taala yàlla waxaat ci aaya joo xam ni boole na ñaari baat yi yàlla ni wastaghfiru rabbakum thumma tuubu ilay inna rabbi rahimu waduud yàlla mu ni na ngeen jéggalu yàlla seen borom waaye tuub jéggalu rëccu seeni bàkkaar delluwaat ci yàlla na ngeen xam ne nag yàlla sama borom day ku mën a jéggale la lool waaye it ku bëgg la lool képp kuy jéggalu yàlla ak di tuub delluwaat ci yàlla yàlla boolewaat na ñaari baat yi ci beneen aaya ni wa yaa qawmi istaghfiru rabbakum thumma tuubu ilay yursili samaa alaykum midraara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum yàlla mu ni ci baatu ci kàddu ko xóot mu ni yéen samay nit na ngeen jéggalu yàlla seen borom tuub rëccu seeni bàkkaar delluwaat ci yàlla kon di yàlla dana ubbi asamaan si wàccee ci ay taw yu bari lool muy xéewal ci yéen mu dolli leen kattan kattan googee ñëw dellu si waat dolli ko waat ci seeni kattan yi kon nag mbokkum jullit loolu mooy jéggalu yàlla ak tuub dellu ci yàlla ay xéewalam bari na lool ay yiwam bari na lool ay barkeem bari na lool ay sekreem it bari na lool danaa la ci tuddal incha allah juróom-ñett yoo xam ne jéggalu yàlla ak tuub dellu ci yàlla am na ko ñun ñépp ñu bàyyi ko xel te jàpp ko incha allahu taala bari na nag lool waaye danaa la ci indil juróom-ñett dongo ba ca njëkk mbokkum jullit mooy yow mi di bari looy tuub ak di jéggalu ci yàlla yàlla da lay bëggal boppam yàlla daf lay bëgg mbëggeelug yàlla nag ku nekk bëgg na ko am ñun ñépp moom lañuy ñaan moo yàlla bëgg yàlla nag booy jéggalu ak di tuub moom dalay bëggal boppam ndax yàllaa ko wax yàlla nee na inna allaha yuhibbu tawaabiin wa yuhibbu almutatahiriin yàlla de nee na man yàlla de danaa bëgg lool ñi nga xam ne ñi ngi tuub maanaam di rëccu seeni bàkkaar di tuub di jéggalu yàlla waaye it bëgg naa lool ki nga xam ni day bëgg di laabal boppam fu mu toll laabal gii nag mooy ki nga xam ni lépp loo xam ne xam na ne lu xaram la mu bàyyi ko wattandiku ko boo déggee njaaloo yàlla ne innahu kaana fahishatan mu ne ah njaalo day ñaaw teef la naa ko wattandiku ndax ma ndax ma set nga dégg iñaan ñu ne la iñaan baaxut xol xol bu bon la lay indee nga daw ko wattandiko ko jëw baaxut lépp loo dégg lu xaraam la te borom bi tere ko rek nga daw ko bàyyi ko kooko ku bëgg a laab la yàlla nag mu ne danaa bëgg kii tuub di jéggalu yàlla waaye bëgg naa ki bëgg a laab lool mooy bu njëkk ba ñaareel ba nga xam ni xéewaluk jéggalu yàlla ak tuub la mooy ni yow yàlla sa borom tabaraka wa taala dalay jéggal say bàkkaar dalay baal dalay musal ci njombe yi nga xam ni moo am ci àdduna yépp tey yàlla moo ko wax ci alquran ni wa inni la gafaarun liman taaba wa amana wa amila saalihan summa htadaa yàlla nee na man yàlla man may ki nga xam ni maay jéggal mboolem ku tuub ba noppi nag di jëf-jëf ju baax ba noppi jub tegu ciw yoon mbokk yi nañu bàyyi xel bu baax jéggalu yàlla ginnaaw boo ko defee ba noppi tuub dellu ci yàlla da ngay jub di rafetal jub tegu ci siraatal mustaqim nangoo jëfee ndigali borom bi tabaraka wa taala te am yéenay bàyyi mboolem loo xam ni bàkkaar la ak lu xaraam kon ki tuub dafay dëggu ci tuub gi dëggu ci jéggalu yàlla gi tabaraka wa taala loolooy tax yàlla jéggal la loolooy tax yàlla nangul la moo tax daf ni wa inni la gafaarun liman taaba wa amana wa amila salihan summa htada man de man yàlla man may jéggal képp koo xam ne tuub na jéggalu ay bàkkaaram ba noppi nag nangoo gëm yàlla gëm gu dëggu ba noppi nag di jëf-jëf ju baax ba noppi jub tegu ciw yoon kon mooy ñaareel ba yàlla dalay jéggal dalay nangul moom moo la ko wax mën ngaa tooñ nit ni ko baal ma mu lànk ni la baalu ma la mën ngaa tooñ buur baalu ko mu lànk ni baalu ma la waaye nag yàlla nag soo ko tooñee jéggalu ko dalay baal yàlla nag mboolem bàkkaar ak lu mu rëy rëy rëy rëy rëy daf la koy baal soo ko jéggaloo ah xanaa bokkaale xanaa bokkaale moo tax borom sulamul wusul day wax ni id kullu dambin muushikul gufraani illa itixaada illa itixaada niddi lirrahmaani nee na bàkkaar bu nekk rek méngoo nag njéggaluk borom bi tabaraka wa ba mu des wutal yàlla moroom yàlla noonu ci yàlla musal ñetteel ba nga xam ni jéggalu ak tuub dala koy indil yow doomu aadama ji yow jullit bi mooy ni borom bi dalay indil texeg àdduna ak texeg àllaaxira te wallaay mbokk yi ñun ñëpp loolu lañ bëgg texeg àdduna ak àllaaxira bés bu jot lool lañuy ñaan jàmmi àdduna jàmmi yowmal qiyaam yàlla nag dig na ko ki nga xam ne mi ngi tuub di jéggalu yàlla waaye nag tuub gu sell gu set ndax yàlla wax na ci alquraan ni wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminuun laallakum tuflixuun na ngeen tuub yéen ñëpp delluwaat ci yàlla rëccu seen i bàkkaar jéggalu seen i bàkkaar te bu leen ci delluwaat mukk ci seen i bàkkaar kon de su boobaa dangeen texe texe gii nag texek àdduna la ak texek yowmal qiyaamati loolu la ñëpp di ñaan kon suñ ko bëggee nañ sax ci jéggalu yàlla ak di tuub di rëccu suñuy bàkkaar fu nu mën a tolloo kon ba ca des muy ñeenteel ba mooy yow mii nga xam ni yaa nekkoon di def ay bàkkaar ak i ñaaw ak i njombe nga dem a dem ba sa xel yedd la ngir nga tuub jéggaluwaat ci yàlla su boobaa mboolem say ñaawteef ya nga doon def démb yàlla dala koy soppil ay yiw allahu akbar yàlla moo baax yàlla moo yaatu yërmande mbokki jullit yi yow mi nekk ci njombe ak tooxi doona ak i bàkkaar dem ba sa xel yedd la ngir nga tuub delluwaat ci yàlla jéggalu yàlla mu ni sa ñaawteef yooya ak njombe ya da koy soppi aw yiw waaye nag jéggalu bu dëggu la la yàlla di wax ndax yàlla ba mu waxee ni ku def nangam ma mbugal ko ku def nangam ma tàbbal ko jahannam ku def nangam nga sax jahannam waaye daf caa mu ni illa man taaba wa amana wa amila amalan saaliha fa ulaika yubaddilu llahu sayi'aatihim xasanaat wa kaana allahu gafuran rahima yàlla mu ni ah ba mu des ñi nga xam ni tuub nañ kon képp koo xam ne tuub na say bàkkaar defoo njombe defoo tooxi doona tuub nga ko ba noppi nag gëm yàlla gëm gu dëggu ba noppi di jëf-jëf yu baax yàlla mu ñoo ñu dey danaa soppi seeni ñaawteef def ko ay tuyaaba ay yiw ay xéewal ngir ñoom ndax man yàlla may ki nga xam ni maay jéggale waaye it man maay ki nga xam ni man maay man maay yëram ku ma neex kon loolu nañu ko bàyyi xel bu baax a baax a baax mbokki jullit yi yàlla ku yaatu yërmande la waaye nag tuub boo ko defee da fexe ba bul delluwaat ci bàkkaar bi nga rëcc woon da ngay gis téere boobu ñuy wax Laxdari yu ma ngi cee wax ni wa chartu tawbati an na ala ma faata mooy charte tuub mooy nga rëcc mboolem li wees woon ci bàkkaar nga wéccu mbo nga rëccu mboolem loo defoon ci bàkkaar mu ni wa an laa yahuuda ila danbin fii ma baqiya min umrihi ba noppi nag nga dogu ni man de dootuma delluwaat ci bàkkaar bi li des ci sama dund mbokki jullit yi lu jafe ngoog jéggalu yàlla ak tuub ak a yomb lool waaye la jafe nag mooy sax ci tuub gi sax ci rëccu bàkkaar bi moo tax sarti tuub mooy nga rëccu ñaawteef gi nga defoon ak bàkkaar bi waaye nag nga dogu dogu naa ni bàkkaar bii ma tuub dootuma ci delluwaat li des ci sama dund lu jafe ngoog waaye nag yal na nu ko borom bi tabaaraka wa taala yombal te jéggal ñu mboolem sunuy bàkkaar juróomeel ba nga xam ni jéggaloog tuub dala koy may yow jaamu yàlla bi mooy ni yàlla ci boppam dalay fompal say bàkkaar ba mu set wecc ba noppi tabbala aljanna allahu akbar lii lépp ci yaatu yërmandey borom bi la tabaraka wa taala ndax yàlla wax na ni yaa ayuha alladina aamanu tuubu ila allahi tawbatan nasuuxa asa rabbukum an yukaffira ankum sayiaatikum wa yudxilakum jannatin tajri min taxtiha al yowma laa yuxzi llahu nabiya walladina aamanu maah nuuruhum yascaa bayna aydihim wa bi aymaanihim yaquluuna rabbana atmim lana nuurana waxfir lana innaka ala kulli cheyin qadir yàlla dafa wax ni yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla gëm gu dëgg lool nee na ngeen tuub dellu ci yàlla tuub gu set gis nga ko tawbatan nasuuxa tuub gu set mooy tuub gu dëgg lool ànd ak dogu ni dootuma ci delluwaat ànd ak dogu ni dootuma ci delluwaat tuub gu dëgg lool yàlla mu ne su meen ko defee kon de yàlla danaa leen fompal seeni ñaawteef ba noppi nag tàbbal leen aljanna aljanna joo xam ni ay dex ay dex day daw ci suufam muy ay xéewal kañ laa leen ciy tàbbal aljanna jooja mooy bés ba nga xam ni yow bés ba nga xam ni yàlla du gàcceel mukk rasulullah ak ñi ànd ak moom ban bés la mu yowmal qiyaama bés booba yàlla du gàcceel mukk rasulullah ak ñi ànd ak ñoom ñi ànd ak moom mooy ñi nangu woon a topp yàlla ak rasulullah ñi nangu woon a topp sunna moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñi nangu woon a jëfee ay ndigalam ñi nangu woon a bàyyi ay tereem bés booba day yàlla du leen gàcceel mukk day def ak leer gu mag lool di daw ci seen kanam ak si di leen wër leer googu nag day mat sëkk ci ñoom bu ko defee ñi àndu nag rasulullah di wax ne yow yàlla yàlla nag ñu matalal sunug leer gii nga nu may ba nu mën a jéggi siraat ci jéggi gu mucc ayib dem tabbi aljanna ci jàmm ak salaam yàlla nag ñu ko defal ba noppi nag daal di wax ni waxfir lana ay yàlla yàlla nag ñu baal suñuy bàkkaar innaka ala kulli shay'in qadir ndax yàlla yow yaay ki nga xam ne yaa man lépp kon mbokkum jullit lu borom bi ak di tuub day tax yàlla fompal la mbooleem say bàkkaar ba noppi tabbal la aljanna kooku xéewal la mbokk yi kooku xéewal la gu mag a mag mag yàlla na ko yàlla defal juróom-benneel bi ci li nga xam ne dala koy indil moom tuub ak jéggulu borom bi tabaraka wa taala mooy ni yàlla dalay musal ci mbugalum àdduna ak mbugalum yowmal qiyaamati allahu akbar yàlla nee na wa maa kaana allahu li yuadibahum wa anta fihim wa maa kaana allahu muadibahum wa hum yastaghfiruun yàlla daa wax ni yéen ñi gëm yàlla te ànd ak rasulullah yàlla du leen mbugal mukk li feek rasulullahi mi ngi ci seen biir waaye it du leen mbugal mukk li feeg yéen a ngi jéggalu borom bi tabaraka wa taala dégg ngeen wax bi day ibnu abbas yàlla na ko yàlla gërëm dafa wax ni ñun day xeetuk muhammad dañoo amoon ñaari sécurité maanaam ñaari kóolute lañ am ñaar moo ñu doon sécuriser benn bi mooy rasulullah benn bi mooy jéggalu yàlla léegi nag rasulullah yi dem na bàyyi ñu fi kon ñu dese benn sécurité muy lan jéggalu yàlla kon nag képp ku nekk ci jéggalu yàlla yaa ngi ci sécurité ba àddunay tukki waaye nag képp ku fi bàyyi jéggalu yàlla amatoo benn sécurité ndax rasulullahi dem na kon bi fi des boo ko bàyyee yaa ngi toroxal sa bopp yaa ngi dugal sa bopp ci kër goo xam ne amul benn sécurité kon nan sax ci jéggalu yàlla ngir yàlla musal ñu ci mbugalum àdduna ak mbugalum yowmal qiyaamati juróom-ñaareel ba mbokkum jullit mooy yàlla dalay yokkal sa wërsëg yokk sa am-am yokk say doom ba pare barke bu baree baree baree wàcc ci yow ba ci dëkk bi yépp sax ndax yàlla wax na ko ci alquran ci kàddu noox ni fa qultu staghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara yursili samaa alaykum midraara wa yumdidkum bi amwaali wa baniin wa yaj'al lakum jannaati wa yaj'al lakum anhaara yàlla dafa wax ni ci kàddug noox ni da ngeen jéggalu yàlla seen boroom ndax yàlla mooy ki nga xam ni mooy jéggalekat bi moom yàlla ay su ngeen jéggaloo yàlla yàlla day ubbi asamaan wàccee ci ndox mu bari lool lépp nag di xéewal ngir yéen lépp di xéewal ngir yéen ba noppi yokk seeni alal seeni am-am seeni wërsëg ba noppi defal leen njaboot gu bari te barke lool ba noppi defal leen ay tool yu naat lool defal leen ay dex yu fees dell ngeen ci mën di bànneexu fu ngeen mën a tolloo aaya bii nag aaya la boo xam ne bu mat a bàyyi xel la mbokkum jullit xoolal ci ñun ci nawet bii ñu nekk nga xam ne tey ñu ngi ci 2019 nawet bi bi muy tàmbali taw bi xawoon a sooxee lool nit ñi ñëpp soxla woon taw mu metti woon lool ci doorub nawet bi ñëpp tiit booba lu ñu def ñun ñëpp dañoo daw jéggalu ji borom bi tabarak wa taala dëkk boo dégg ña ngay organiser jullit baaw naan di jéggalu seen borom àdduna si sépp daanaka boo ko xoolee ñu doon dem màkk ñëpp la ñuy wax mooy ñaanal leen ñu ndoxum jàmm ñëpp daw jéggalu ji borom bi tabaraka wa taala waaye gis nga ba nu dawee jéggalu ji yàlla lu ñu gis comme résultat taw bi bari na lool alhamdulillah taw baa ngi wàcc macha allah tool yaa ngi naat gerte yi tàmbali woon nañ di tiit ndax ñu ngi commencé woon di lax waaye bi ñu dawee jéggalu ji borom bi gis nañ toolu gerte yi alhamdulillah mi ngi naat lool tool dugub bi kazalika mi ngi naat lool tool mboq yi kazalika mi ngi naat lool alhamdulilah àll bi naat na lool jur gaa ngi dund ci jàmm ak salaam nit ñaa ngi ratt ci seeni jur di mën a bànneexu bu baax ngir lan jéggalu borom bi tabaraka wa gis ngeen ko de loolu rek mooy yor wi mbokk yi feek ñu ngi ci jéggalu yàlla xéewal du dañ mukk di wàcce ci dëkk bi waaye nag suñu ko bàyyee amatuñu benn sécurité te borom bi tabaraka wa taala mën nañ ñoo mbugal yàlla nañu ci yàlla musal kon nañu ko bàyyi xel bu baax a baax a baax mbokkum jullit am na benn bés taw bi xawoon a tagga tembe lool ci yi Omar ibn al-Khattab mu àndoon ak euh, saxaaba yi demoon doon def julleg baaw naan ba nu jullee ba noppi Omar di ñaan waaye nag gis nañ ko ñaanul dara moom daal day jéggalu yàlla rek di jéggalu rek di jéggalu rek di jéggalu rek ba ba yàgg mu ni nañu dem ñu ne koy Omar ñun dégguñ la benn yoon nga ñaan yàlla mu may ñu ndox te ñun ndox moo ñu indi fii Omar ni man de dama sàkku ndox jaare ko ci biddiw bi ñuy wax almajdax maanaam biddiw la boo xam ne boo ko gisee rek mandarga la maanaam mu ngi waaj a taw nee na daf ko dafa jaar yàlla da ko ñaan ndox jaare ko foofee mais lim ci jublu mooy aaya bi yàlla di wax ni wastaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara yursili sama aleykum midraara moo tax bi mu ko waxee dafa jàng aaya boobu ni aaya bii loolu moo tax ma sax ci jéggalu borom bi tabaraka wa ngir yàlla may ñu ndoxum jàmm kon aaya bu mat a bàyyi xel a goog xasnul basri yàlla na ko yàlla yërëm daa am ku ñëw ci moom doon ko jàmbat naan ko man de sama alal ji daal dañu koy jël rek te fi mu toll ni daanaka man am naa natt bu metti samay jur mi ngi dee sama tool yaa ngi wow nangam ak sàngam moom mu ni ko ah saxal ci jéggalu yàlla loolu rekk la lay dénk ne sut beneen waaye ñëw di ko jàmbat ñàkk gu metti gu ko dal moom it moom it mu ne ko jéggalul yàlla maa ngi lay dénk nga sax ci jéggalu yàlla am keneen ku ñëw ni ko ba damaa bëggoon nga ñaanal ma yàlla mu may ma may ma wërsëg xasanul basri ni ko maa ngi lay dénk nga jéggalu borom bi tabaraka wa taala am keneen ku ñëwaat ci moom ni ko man dey dama sëy lu yàgg lool aw ma doom xasanul basri ni ko jéggalul yàlla sax ci rek maa ngi la koy dénk ñi toogoon ak moom ni ko waaw yow dey gis nañ ñu ñëw ci yow bari lool waaye nag jéggalu yàlla rek nga leen di digal xasanal basri daal di leen wax ni yàlla de nee na fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara yursili samaa aleykum midraara wa yumditkum bi amwaalin wa baniina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaara kon jéggalu yàlla mooy tax borom bi wàcce ay xéewal indi ak njaboot gu barke indi ay bànneex ci ñun même yow mi nga xam ne yaa ngi sëy amoo doom sax jéggalul borom bi tabaraka wa taala te dëggu ci sax ci incha dina saafaraw yow mi amut dara jéggalul borom bi tabaraka wa taala incha dina saafaraw yow mi wër liggéey amoo saxal ci jéggalu borom bi tabaraka wa taala incha allahu sa aajo dana faju léegi juróom-ñetteel ba mbokkum jullit mooy ni yàlla dalay may kattan dalay may doole ba noppi sag dund day neex lool mbokkum jullit yàlla wax na ci alquran ni wa an istaghfiru rabbakum thumma tuubu ilayhi yu yumattiakum mataan xasanan ila ajali musamma yàlla de nee na na ngeen jéggalu yàlla seen borom tuub delluwaat ci moom kon dey dana leen xéewal xéewal gu neex lool ba keroog ngeen fi jóge waaye nag yàlla waxaat ni wa yaa qawmi istaghfiru rabbakum thumma tuubu ilayh yursili samaa alaykum midraara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin yàlla nee na yé dafa wax ci kàddu ko xóot ni yéen samay nit da ngeen jéggalu yàlla seen borom te ngeen tuub delluwaat ci yàlla su boobaa yàlla dana ubbi asamaan si muy taw taw bu bari lool di xéewal ngir yéen ba noppi dolli leen kattan mu dolli ko waat ci kattan gi ngeen amoon maanaam muy ak njaboot gu bari ñëwaat fekk si leen te lii ma leen di digal bu leen ko lànk bu leen ko bañ su boobaa day kon da ngeen doon ay kàccoor kon mbokkum jullit jéggalu yàlla dana dolli jaam bi ci yaramam sama ngóor a wàññiku na nay sax di jéggalu borom bi tabaraka wa taala insha allahu kàttanam dina dellu si waat insha allahu kàttanam day dellusiwaat yow mi yëg ak néew doole ci sa yaram sax jéggalul borom bi tabaraka wa taala insha allahu kàttan gi day dellu si ci yow kon mbokkum jullit lii mooy juróom-ñett yi nga xam ni naa nee naa woon dinaa la ko indil waaye nag jéggalu yàlla na ñuy sax di ko def lu baree baree baree bari ndax jëlee nañ benn xadis boo xam ne Abdullah ibn Bisr ci lañ ko jëlee yàlla ko yàlla gërëm mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na tuuba liman wajada fi saxifatihi istigfaaran kathira nee na xéewal day ñeel na waa ji nga xam ni ba demee yowmal qiyaam ñu ubbi ab téeréem dañ fa fekk ak jéggalu yàlla gu bare lool kooku day xéewal xéewal ñeel na ko lool kon mbokkum jullit nañu ko bàyyi xel tey jéggalu borom bi tabaraka wa taala képp koo xam ni bëgg na ëllëg yowmal qiyaam sa téere jëf nga fekk ca lu la neex nee na bari looy jéggalu borom bi tabaraka wa taala te na ngeen xam ni yàlla ku baax la ku bari yërmande la lool ku mën a jéggale bàkkaar te bëgg jaamu yàlla yi loolu li koy wane mooy guddi gu jot bu demee ba nga xam ne des na xaaj bu ñetteel ba dana wàcc moom yàlla ba asamaan ci tiim àdduna di fa wax lan ana ku may jéggalu ma jéggal ko allahu akbar yàlla moo bari yërmande mbokk jullit yi kon nañu jéggalu borom bi ndax yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar te bàkkaar yi bari na lool te it yi bari na lool musiba yi bari na lool foo dégg ak koo dégg ma ngay wax accident yu bari ci réew mi jafe-jafe yu bari ci réew mi lépp daal bu ñu saxee ci jéggalu yàlla ak tuub suñuy bàkkaar insha allahu lépp day wàññiku xéewal am jàmm am yàlla na nu yàlla defal jàmmi àdduna ak jàmmi yowmal qiyaam jéggal ñu mboolem suñuy bàkkaar te saxal ñu ci siraatal defal ko mboolem jullit ak fu jullit mën a nekk wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.